Euh, voilà, merci. Je suis Marie-Agnès Djemé. Euh, je suis originaire de Ziguinchor, mais j'ai grandi à Thiès, donc je me dis thiessoise. Je vis en Belgique où je suis mariée avec un flamand et j'ai deux enfants, un de 17 ans et une de 10 ans. Euh, j'ai l'association Togal Djang que j'ai initiée depuis euh, bientôt 7 euh, ans. En Belgique, elle s'appelle Togal Jang et au Sénégal, elle s'appelle AJX, Association Diapalé Khaleyi. Donc, nous avons voulu faire deux associations, euh, tout simplement pour euh, que les gens, euh, qu'on enlève le doute dans la tête des gens. Euh, l'association de Belgique s'occupe de gérer tout ce qui est euh, amassé, l'argent, les moyens et le matériel. Euh, nous les transférons entre les mains d'une association et pas d'une personne euh, donc mu nekk un transfert qui est très Euh, comment traçable. Donc euh, aussi bien le, le, traçage financier que le traçage du matériel, ça tombe au nom d'une association pour tout simplement montrer aux gens de l'autre côté que nous ne sommes pas mus euh, le besoin personnel, l'enrichissement personnel. Donc c'est pour cela que nous avons fait deux associations parce que j'ai grandi ici avec des gens et nous avons rêvé ensemble de changer euh, les mentalités, de changer euh, la vie des femmes, des enfants surtout qui n'ont pas demandé à naître mais que nous devons par nous, avons le devoir de, de donner une vie meilleure que la nôtre. Euh, et depuis, bon, nous avons commencé, c'est notre septième conteneur qui arrive maintenant. Euh, en dehors du conteneur, notre travail, c'est d'amener les enfants à l'école, de les aider à d'y rester le plus longtemps possible, mais spécialement les filles. Voilà. Et pour cela, nous ne pouvons pas euh, forcer les parents à l'école. Donc notre système, c'est d'aider les écoles à avoir des cantines scolaires euh, que nous euh, pourvoyons en matériel et en euh, denrées. Et donc, cela permet aux parents d'être beaucoup plus en même d'aller inscrire les enfants. Et les enfants, sachant qu'il y a à manger à l'école, ne veulent pas changer d'école parce qu'on change d'école souvent parce qu'on n'est pas bien. Alors, ils travaillent très bien à l'école et ils restent. Donc, nous avons commencé avec notre école pilote Thiès, non Et euh, c'était une école qui, quand même, était dans le bas du tableau. Euh, quand nous avons commencé avec eux, il avait pas un enseignant qui se sentait Ils sont parmi les trois meilleures écoles, si je ne me trompe pas, euh, de Thiès, parce qu'ils ont gagné quand même euh, euh assez de galons entre-temps. Nous leur avons euh, construit un réfectoire, une maternelle, et ils ont vu leur taux d'inscription monter. Et nous avons aussi vu que les enfants ont commencé à avoir de très bonnes notes et puis à se hisser au meilleur Ils ont eu des très bons résultats aux examens et tout. Et nous, pour nous, il ne faut pas plus, c'est tout ce qu'il nous faut. Et les enseignants aussi ont eu beaucoup de matériel didactique de notre part. Nous leur avons donné des tables bancs, tableaux, euh, des compas euh, pour, pour mètres euh, et les maîtres, les grands maîtres. Donc, ce sont des matériels qui sont peut-être assez, bon, on peut les banaliser, disons, mais pour certains qui ne l'ont pas, ça peut devenir quand même euh, de vouloir travailler sans avoir des outils. Et quelqu'un qui travaille sans avoir d'outils n'a pas envie de travailler. Et nous, avons juste voulu euh, leur donner l'envie de travailler parce que moi, en tout cas, je garde un très, très, très, bon souvenir de mes années d'école, euh, du temps où on arrivait à l'école, qu'on avait tout ce qu'on avait besoin jusqu'au taille-crayon. Je, me souviens encore du taille-crayon que le directeur il, il pour nous. Et, et, quatre murs euh, pour les enfants. Et aujourd'hui, nous venons avec euh, des tables bancs, nous venons avec euh, des cahiers, des livres pour euh, bibliothèque, parce que nous avons commencé à ouvrir une bibliothèque à Thiès Nord. Donc nous allons leur donner encore plus de livres parce qu'ils ont commencé à faire un concours de lecture. Donc nous allons les pousser à beaucoup plus lire et à améliorer leur niveau en français. Et donc, euh, nous avons des livres, nous avons euh, du, du, de cuisine hein, que nous allons donner euh, euh, aux femmes. Parce qu'il y a des femmes qui ont des mortailles comme ça et ils en, elles en ont besoin. nous en avons donné à, sauvegarde, au centre sauvegarde, mais nous allons aussi en donner au CRETEF parce que là-bas aussi, elles ont besoin de matériel de cuisine. Euh, nous allons leur donner l'AGD du matériel, mais c'est beaucoup plus pour la décoration. pour euh, les gens qui font des fêtes et ils mettent des dragées dedans et tout ça. Donc ces gens-là, dans leur domaine d'apprentissage, ont besoin de cela, mais souvent ne l'utilisent pas parce qu'ils n'en ont pas. Mais nous, on les reçoit, donc on le leur le met en, en, entre leurs mains pour qu'ils puissent aussi améliorer leur, euh, propre expérience. Nous avons des chaises euh, roulantes, il y a encore d'autres qui viennent parce qu'il n'y avait pas assez de place dans le conteneur. Les vélos vont Sénégal parce que nous euh, de des vélos aux enfants qui sont dans des zones très enclavées, comme par exemple en Casamance, il y a souvent des, des enfants qui sont euh, loin dans les villages et qui doivent encore traverser des zones où il y a des, euh, des rebelles ou bien des zones dangereuses. Et donc, ils, ils vont à l'école à vélo pour éviter les, les places qui sont minées. Donc, euh, on, on, a souvent donné des vélos. Là, on a la chance qu'il y a eu deux vélos qui sont arrivés. Nous avons beaucoup d'habits. Et c'est euh, des habits aussi bien neufs que seconde main euh, que nous donnons aux, euh, aux pouponnières euh, de Mbour et euh, de Niani. Pour l'instant, ce sont les deux pouponnières avec lesquelles je travaille. Quand j'ai un peu plus, alors je, je m'ouvre à une autre pouponnière. nous travaillons aussi avec les écoles de foot parce que l'école de foot de d'Allemagne, de Karl Heinz Rummenigge, nous donne tous les ans en grand carton plein de chaussures de ses, de ses élèves qu'ils ramassent euh, de l'année passée et on les et on donne notre école de foot ici. Pourquoi nous l'avons fait Parce que nous, nous ont tagués euh, de, de, féministes que nous, que nous n'aidions pas les garçons. nous avons voulu un tout petit peu euh, corriger la chose. Mais dans notre école de foot si les enfants sont tenus d'avoir un bon bulletin pour, pour en faire partie. Donc on leur donne les maillots, on leur donne les ballons et tout euh, pour qu'ils puissent jouer, mais quand même être bons à l'école. En dehors de ça, nous avons aussi du matériel médical. donc nous avons les, les euh, cabinets dentaires, euh, mais en dehors de ça, nous avons beaucoup de produits de premiers soins. Nous ne prenons pas euh, les, les, médicaments parce que bon, euh, ce n'est pas permis, mais nous prenons les produits de premiers soins parce que cela souvent est un problème dans les zones rurales euh, où juste un petit désinfectant fait défaut. Donc on aide les gens jusqu'à Kolda donc, et les postes de santé aussi. Donc nous, nous, nous, avons eu avec notre dernier, euh, le, le, conteneur avant celui-là, nous avons pu aider plus, de 10 postes de santé entre ici et Kolda. Donc à Kolda, on en a aidé 4. Ici, c'était euh, Petit Tchali, euh, Chesnon, euh, non pas Djahao, mais euh, euh, le l'hôpital régional, on les a aidés aussi. Donc à Kolda, c'était l'hôpital régional, le district les, et puis les postes de santé, 6 kilos, je ne sais pas quoi, c'était tous des noms un peu <laughs> compliqués pour moi. Mais nous avons pu quand même faire passer des postes de santé. Euh, non, 6 kilos, c'est à Kolda. Oui. Donc, euh, euh, nous avons pu sortir des, des, postes de santé de leur zone rouge à leur zone verte. Et, et donc, ça va parce que euh, l'année passée, nous avons donné à Tiesnon euh, un matériel qui était très performant. Donc, c'était des échographies Et l'hôpital régional aussi en a reçu trois et des heart bowakers, c'était des hum, trucs cardiaques, des moniteurs cardiaques. Voilà, euh, des, des, moniteurs cardiaques euh, à l'hôpital régional de, de Thiès. Cette, cette fois-ci, on n'a pas de moniteur cardiaque, mais les prochains conteneurs euh, seront tout aussi achalandés que ceux waaw ci njàng mi moom moo ñu taxoon a jóg sax waaw ba léegi tamit moom moo ñu tax a jóg euh, ndax sunu tur sax tënk na lépp. toogal jàng boo ko waxee bon pratiquement génnoo école mais tamit euh, xale yi jigéen ñi ñuy dimbale boo yëkkatee xale bi yóbbu ko ci mu dem jàngi ji yaay ji am jot su yaay ji amee jot tamit dana soxla ku ko jàppale pour mu mën a euh, def dara donc ñun dañuy dimbali xale yi ñu dem jàngi dimbali euh, jigéen yi bëgg nekk ci ay mbootaay am lu ñu def Euh, di dimbali xale yu ndaw yi nar a nekk ci mbedd mi di tamaambaalu donc euh, loolu rafetul donc dañ leen di dimbali may leen ay matériel ñu yu ñu fowee euh, ubbi ay bibliothèque ñu mën cee jàng jàngatu jox leen ay matériel sport ñu mën a tàgg tàggat seen yaram bu ko defee tamit njàng mi day nekk benn yoon woo xam ne lépp ngi ci biir di nga jàng am xam-xam mais di nga di nga aussi def li nga xam ne dara du la ci mën a yóbbu ci yoon buy mooy daal donc euh, loolu ñun moom moo ñu tax a jóg. toogal jàngal concept lan la pour jéem a ñaax jigéen ñi ñu mën a toog waaw parce que parce que dama seetlu dama seetlu ne Sénégal euh, boo demee école di nga gis école bi bëri bëri lool ay xale yu jigéen mais au fur et à mesure ngay yéeg année yi ngay gis classe yi góor ñi di ëpp jigéen ñi parce que tout simplement dafa bëri ay waxuma sax way-jur mais société bi yëpp la ñuy wax euh, xale bu jigéen boo xam ne dafa ñëw am note bu bon école kenn du ko wax dara. parce que dañ naan ah, boo jàngul rek nga ñëw toog ci kër gi. waa mais boo demee waaw mais boo sëy boo sëy jee imaginel nga xam ne jigéen boot doomam yóbbu ko hôpital ñu bindal ko ordinance mënu koo liir muy génn ci mbenn mi naan sama càmmiñ liiral ma su ko mënoon liir sax baax na xam nga loolu mën na sauver doomam mën a jël température mën na sauver doomam donc jàng daal warul am sex jàng dafa war a dafa nekk loo xam ne góor wala jigéen ñëpp danoo war a jàng kenn ku nekk si ñoom dafa war a jàng ku nekk nag ak la yàlla may ci xam-xam mais foog naa ni jàng bi buñ ko jëlee jéem koo dugal si bopp xale yi ne leen jàng bi dafa nekk loo xam ne kenn du ko négocier da nga war a jàngi ndax euh, li góor mën jigéen mën na ko bu boobaa yaakaar naa ne dinañ dinañ jàng mais boo leen ne ah yow de boo jàngul liggéey ah waaw mais jëmul jëmul kër parce que tey jii gis nañ ne même mi naan kenn fayu ko dara te jëmu demul fenn jigéen bi bu bu jàngul du mën a tamit développé wu te moom moom xëy na mooy waddu wante ñaari loxo yi ñooy takk tubéy tamit. concept boobu est-ce que yéen koy yi pour ñu maa ngi koy ñaan parents yi mais euh, problème mu Sénégal moom mooy ne comme que ñun duñu fi yàgg ma Njaay bi nga xam ne moom moo yore ñun suñu kuréel bi fii euh, mu tudd association jàppale xale yi. mu ngi ciy liggéey bu baax day dem ba si kër parent yi wax ak ñoom ak yépp ndax yenn saa yi ñu gis xale boo xam ne euh, potentiel potentialité am na ko daan moom mooy maanaam xale bi am na xelum jàng mais xëy na ay parents si ginnaaw ñoo ko ci jàppalewul ndax doo doo gis yenn saa yi gis xale génn école rek ñëw rek sànni kaye bi rek kenn du ko ne lan nga jàngoon yooyu donc kooku ni muy gën di dem kaw muy gën di dellu ginnaaw. wala xale bu ñëw am on surveille nga nekk ah am na moyenne mais moyenne c'est l'avocat moyenne mën nga jàll ba keroog ba keroog ngay dellu ginnaaw donc euh, bu fekkee ne xale bi dafa ñëw indi dara nga nekk baax na mais mën nga lu ko raw kooku xam nga sas sas nga ko sas nga ko dafay forcer dafay forcer jàng leneen mais jigéen euh, dañ ko jël daal yombal léppam te yombal bi en fait du yombal dañ ko dañ ko woyofal te woyofal bi moom moo tax après ñoom dañuy dem ba nga xam ne école dootu am importance si ñoom léegi moo tax ñun ñii ñaan parents yi ne leen toogal jàng bi en fait lu muy laaj moom mooy yow toogal jàng ñun ñi def li ci des ñun ñooy jënd euh, bu dee blouse la ñoo ko daan jënd am na école yoo xam bàyyi nañu blouse mais ñun dañ doon jënd blouse pour euh, élèves yu bëri fayal leen seen inscription fayal leen seen cours de renforcement lu tax ñuy def cours de renforcement yi parce que xale yi nga xam dañuy toog añ buñ toogee añ maître yi jàngal leen surtout jigéen ñi comme ça seen leçon dañ koy jàng def seen ay devoir bu ñu ñibbee kër ga ndaj ñi maire yu mel na sama yaay xam ne ngay ñëw ñeen di ubbi waañ bi bàyyil la ko fekk nañu jàng ba pare bu boobaa kenn du ni toogal jàng moom moo tax ba xale yi nekk ay tubaab ndax mënatu ñoo togg ndax boo yeggee ci kër ga ñu ngi lay ñu ngi yar nañ la war a yaree mais fekk na aussi li nga waroon a jàng nga def ko. Mhm. lan ngeen fas yéenee jébbal yi nga xam ne yéen a ngi lëkkaloo kuréel yi nag moom. état bi dong laa si ñaan ñu jàppale ñu ndax boo bëggee jël conteneur fële fay ko indi ko fii mu nekk loo xam ne da nga koy jël rek pour may ko nga ñëw bëgg cee fay loo xam ne ay 2 millions jëm kaw loolu dafa metti ndax 2 millions yooyu mën nañ cee dimbale yeneen école ndax on est en 2017 21e siècle ñii mbaar di jàng ñun xamuñu ko woon ñun bi ñuy jàng te man tey jii léegi ma yegg sama 50 ans donc mbir mi dafay nuroog dox donc euh, te ñëpp di dox jëm kanam euh, bu doon suñu sago xaalis boobu ñun mun ko jëlee mën nañ ko dugal si leneen gën a dimbali école yi dem ci ay école tablement yi manqué xale yi teg ay briques toog xëy na ñoom yëguñu ko xaw ma de mais man dem naa ba gis yooyu donc fii ci biir Sénégal bi ci 2017 je trouve que loolu ñun war nañ koo jommal suñu bopp te euh, di ñaan aussi kenn ku nekk si ñun biir Sénégal jàpp ci daal parce que état bu ne état ci ñun la commencé bu ñu defee ñun as li ñuy def man si ça change la vie d'un enfant doy na ma sëkk parce que ñun toogal jàng am nañ suñu benn maskot xale bi njéemi la doon loolu rek laa koy tuddee noonu euh, mais xale bi dañ ko maye woon par exemple ba mu nekkee xale bu tuuti euh, am juróom-ñeenti at ñu maye ko ñu ñu ñëw man ak sama jëkkër tiital parents yi ne leen dañuy dem tribunal xam nga du woon sax suñu yoon suñu yoon new ci woon sax mais ñu jàpp wax ci wax ci wax ci ba ñu dem jëlee ko ci sëy bi tey ji elle est enseignante. elle fait ses études encore à l'université xam nga donc loolu su ko. pas Thiès la mais bëgguma ci kii parce que elle est très brave mais boo seetee loolu rek man pour man bu fi yemoon sax neex waaw parce que am nañu ñeneen ñu mel noonu ñoo xam ne aussi seen parent parents dañu gaañu Euh, amuñu woon ñu leen dimbali ñu jël leen di leen fayal école di leen dimbali di leen euh, tette ba tey jii on a un ingénieur informatique on a euh, un ingénieur buy def tout dans la volaille yooyu am nañu maintenant beaucoup plus de fii à l'université alors qu'avant benn fii boobu la ñëwoon université maintenant je pense qu'on a quatre filles à l'université et on a une très très brillante incha allah yàlla na ko yàlla jàppale ren mu am bagam donc ñun loolu lañuy kii daal loolu la ñuy tiitaroo voilà donc si suñuy école li ñu bëgg moom mooy aussi bien les garçons réussir mais aussi les filles parce que benn benn jigéen bu nekk bu dem de l'avant rek ñeneen ñi dañuy xool ci yoon ci kooku bëgg avancer et buñ ñu ci jàppalee ce serait très bien parce que du kuréel moo manqué de pour jàppale kuréel yi bëri nañu kuréel yi bëri na trop mais euh, buñ jàppalantee je pense que ça nous donnera beaucoup plus de euh, de